mbokk yi déglu leen dama leen a bëggoon a boole ak ki nga xam ni mooy faj-fajub cosaan ci ay produits yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci gàncax gi maanaam lépp di ay plante ci lay jaare faj la ah mbokk yi kooku mooy cheikh borom produit yu baax yi yow mi góor wala ngay jigéen koo mënti doon nga am feebar bu la jaaxal ñëwal setti cheikh borom produit yu baax yi nga am tànk yu ruux wala tànk yu metti seet sil cheikh borom produits yu baax yi pajum cheikh soo koy jëfandikoo di gis résultat ndoxum city hémorroïde prostate naka noonu ngay am chute de cheveux manam sa karaw di daanu nga am leel leel bi jaaxal la lool dina la jox ay produits yoo xam ni boo ko ci defee sa karaw dina dëgër ba noppi borom leel ba leel ba dina ñëwaat saxaat karaw nga néew kàttan ñu ne góor warta néew kàttan néew kàttan ci moom tooñ la moo tax seex dina am loo xam ne bu la ko joxee sa kàttan dina gën a bëri sa doole dina gën a bëri kon cheikh borom produit bu baax yaa ngoogu nga am biir bu rëy cheikh dina la jox produit yi nga xam ni moo koy dindi nga nekk jigéen bëgg ay forme yu baax Cheikh dina fexe ba nga jongama am na loo xam ne bu la ko joxee ku la romb xoolaat la yenn ñépp yéen a ngi xaar ma joxe numéro Cheikh jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 Serigne Cheikh borom produit yu baax yi. Raban Bita tàggul gugun tapi daba tape. reeb reeb. gégel gégel gisib gind gisib gind gisib gind. xoolal vacance su ñàkku la. kër yoro. vacance su ñàkku la. kër yoro. vacance su ñàkku la. kër yoro. vacance su ñàkku la. kër yoro. yoro lu mu doon si ñàkku. nijaayu ñàkku. tap hey sa bi ay tap tap tap sar ke ke ke ke ke ne ka la yoro la xolal nguur gi ci kër gi jaaxal na mu tap tap tap nguur gi ci kër gi jaamal hamburger one here. Wow. Wow. Eh, no. Wa me eh. Wa sambul amul amul dara de. Buru amul dara la indi. Bu li la la am li nak me gis tala. ah loolu fee moom loolu amu fa moom fee feelum gàtt-gàtt dana fa dóor sakaa wala dóor bool ga wa wala ndanga fët fët waaye mburu kese lii lii koo koy lekkee noo def wala naa yee yow soo soo soo teeloon bu yàgg soo teeloon na yow bu yàgg yi kay fekk dañuy yokk dagal dagal daal neex dagal dal neex ko fi tout neex bi loo xamante ni soo fakay waaye mburu amul dala mën naa xaar li ba soo ba soo soxla bopp ma nga nga xam ne man nga dafay ay waay ay mi ngi am ba léegi neexul ba neexul waaye njaw des na xam bi njaw des na xam bi ak yërëm yi mbéte fu jinax finaan ay please someone whoa, whoa, whoa, pulau. ñu maanaam sant mu ne wene maanaam sant façon bu ne gis naa ko nag waaye bii moom ah un peu ko lii waroon la weeru koor lëmm amoo loo ma wàcceel suñu kër gi lu dul melo ah ah suñu borom jiwuma la lii man. c'est la culture tur fexe bu ko tur nag. <laughs> ah Mbete ko xam sa man kenn maa ñaanul yàlla xam sa tur nag way sama way yaay ay waay. ah baax na dañ leen kookale góor la Égypte naan gabakse gabakse waaye gabakse ngi kee gabakse kee gabakse. illallah yow da ngay di dippar ñi ay waay yàlla. Ah, nu muy nu boo ko sebetee sox ko foof ko bees ka nan lay beree lii moom maa koy lijjanti man façon yi mënu ma dëkk ak ñoom ci kër gi lii maa koy lijjante yoro way sa man ay laaha illallah way sa man ay li ma xaar mu dugg si baax ak kon waa ko li may toppoo ba di fekk def xolomam léegi. xëy jëlee. so naaqati mulimina 뭐? 응? 응? 가! 방, waaw xam nga moom. li nga seex moo bari. waaw ah. ah bu dee maa ngi tudd ah. kafe bi yëpp booy xar naa ko ñëw xar mi kii sa xar kafe ma ne kafe boo ko kafe ah. ko ne kafe. ah ah kafe gi jeex ah kafe bu ñu jeexee. ah kafe gi jeex na de. ah xar bi la toog waaye de li ma waxoon ci Dakar ak li am ci Dakar moom bokkul bàq ak ba wóor ma ñu kaay dama waxoon Dakar ak léegi lu ma gis Dakar fépp. wallaahi looy expliqué. ah. Hmm? lan ngay expliqué nii. ndekki nga. Hmm. sang woon na sang bi ma la wax def nga. ah. ñamp. ñamp. lan la yow. booy xoolal mu yomb ndekki booy dëkk. ndeki nga wala ndekki wuloo nga ndaka falaa nga yow ma ngi fekk ngay sakka mi ngay woo fa laa ndékkee xool ma defal nii defal nii weetaanal ruusin mburu buri nag waaw ruusin na le nag mburaake bi ina indaale mburaake moo nekk sa pooj fii yow da nga indi bagage ngay wax mburaake di xoolal eh. wala bul yàkka der nag déglu ma nga boole naa lu mo neex ak lu mo nakari di muñ bul fi nekk nak di créer affaire yàkka der di wax do lekka ay sax de wax bi may këy a ko naa la jëndal kilo mburu mu defal la ndékki même bu la ma dem mburu def ci dara lan mburu nokkatal ni naa la mburu kese kese mais mais xaaxal yi sax sa la joxoon mburu kese lekk nga ko wala lekk loo ko lan lekk nga ko wala lekk loo lekk lekk nga mburu bi lan lekk nga mburu bi wala lekk loo mburu bi dama mburu bi awul dara waa léegi lekk nga ko waaw loolu la ma yàlla may nga muñ si noonu yow xanaa fi nekku Dakar bu nekkee Dakar nag Bulu mu amul dara ñu fees xaw bulu, sax ñu du du du sax rek ñu jël tuuti bon ah wa sax wala sax ah boo nga jël teg rek laa kaj foofu laay wér taxaw xam nga fi Dakar la civilisation lañ fi soxla ñaan ko boo bu guddi jotee boo bëggee dem duus demal duus waaye xam nga néeg bi dafa kat tàngoor la ni nga doxat démb bu mu amaat xam nga yaa ko tey parce que jékki naa jékki gis nga xool si bët xool ndax gis naa la gis naa la doxat yi feree na ko. guddi loolu la ma dama dama dama te explique. man su ma xasee nelaw ma wax kaay ma taw a contrôle sama bopp affaire yooyu di génn. nelawoo waaw boo may nelaw nelawoo. nelawoo laa wax ba ba doxal pëlewul wala troisième wala waxal waxal. du xam nga xool nga ba xam ni doxal nga trois doxal. waaw xam naa waaw la bala ci. léegi yëpp laa wax. yëpp yëpp ma ne ma dara yéen nana naa yëpp ma ni noo xamee ni dóor nga turwaat dokot ëpp na ko sax paax moom laa dencoo sa biir ah xanaa waxaa dencoo bu guddi jotee dee ko génne balaa ngay dugg si néeg bi di demal taxaw si duus bi lii lan la fu ma sigi solu mel ni kuy saw buy tëdd dem taxaw la eh, déggal li ma la wax rek nag ah ah ça va yow tee nga affaire da ngaa da ngaa commencé naa métti te demaale gud fende non man kay dama xamul lan laa def yàlla yàlla moo ma jëppi rek ah Jappé loo def. dara loolu la def. sant rek. Ah? Hmm. Hmm. yi tamit nga di ko dindi boo ko guddi jotee na fanaan ci biti. waaw ah, saa li nga wax ci moom bali na nag de. déedéet dàll yi soo bëggee wax ay lekk boo wax ak tudd affaire doxal ci ci yi doo tamit loo la lay dese. ni boo guddi jotee kuy tëdd da ngay tëdd kan mooy tëdd ak dàll guddi jotee kay jëlee dàll yi nga teg ko fii wala yow wax dëgg yàlla wax nañ ko ku amul kel du wàccu kel du wàccu ket bi du la sonal. waxee xet bi dégagé bi odeur bi. daale odeur daal bi odeur tubaay bi. waaw odeur yére bi ak odeur boppa bi. du la du la sonal. su ma tëddee waaw sama bopp lu féetee nii. waaw sama tànk féetee nii. waaw yi nan la ñëw sama. Eh, eh. fuuy. bu ñu waxee rek nga yàq ngooñ yàq ngooñ rek yàq ngooñ rek léegi da ngaa bàyyi mburu masata et eh, bu masata da ngaa bàyyi mburu léegi. waaw kay yow wàllum hmm? seet. mooy tur masata bu la mën ngay cëng mel ni kuy jéggi ay neefere nii. uyu ma mburu léegi ma am. yoro nekkatu la waaw wax ak laa bëgg de. waaw ñëwaat naka la jàmm masata laay waxal léegi ma masata xaw ma masata jaag dama ne nga uyu ma. waaw làmmiñ mënta lekk te morom mi te ñorul. man ba nga fii andi gan may may ma rek. ba nga fii andi gan dama yaakaar doomu aadama nga fi andi. Ah. dama yaakaar ni ku mag nga fi andi. waaw dama yaakaar ni ku nit nga fi andi. waaye ki nga fi andi xam nga ab dof la kii. ab xulleem ñaaw na. ay may ma. may ma may ma ñeneen nii. xoolal waaw waa nii taxawal nga wax. déedéet eh, boo mënul taxaw wax na ak ñam ak yi muy. déedéet du masata masata mi ma masata moom day lijjanti. waaw bàyyil masata waaw kay. waaw bàyyil masata sab dafa am araam bii laa bëgg nga lijjanti ko. kan ngay wax mesurer sa langage. dama ne sab dafa am araam bii nga bëgg nga lijjanti ab daa yori kayit ma dëkk ak dof aw lekkam ñaaw na ab xulleem ñaaw na xetam foor na man nag du ma dëkk ak bi foofu dong laa yem ma ngay ut pexe wala ma ut pexe wala ñu seet lu ñuy def. voilà léegi pexe bi ngay wut. waaw mooy nga jël sa bagage nga dem. mooy pexe bi gën a gaaw. xam nga mooy pexe bi gën a gaaw. te sama wax bi gën a nekk ci wax yi mooy lan. bàyyil ki ngay wax dof. pire non dama lay wax nit sol na yére sol tubay def rasta fekk ku katt koonam la. wala <laughs> waa ngi bëgg am ab daaneel. may ma ma ne sa waay ngi bëgg am daaneel. da ngaa wax da nga may <laughs> déglu. ma lay déglu dama lay expliquer. nit nit la <laughs> yaa ngi dégg <laughs> yére du def nit nit nag du du yére la ñu koy koole hmm. nit fu mu nekk waxoon naa la ko kerek foo nekk sa mbokk dina la fa fekk kii man ak yaayam ñoo bokko est-ce que man damaa wax yàlla na ma boole a ma mbokk ak dof est-ce que yàlla dama ko wax choisir naa pour bokk ak néeg koo xam ne day wallak wallak sa bokk ak kër kuy wallak wallak sama kanam lu yàlla dogal lu ma si mun ah xam nga lan la def ko nii sa bopp yàlla tere. waaw yàlla tere nga téye sa yàlla tere araam na kuy naan sàngara araam na kuy laabooy lenset xam nga lu ma la bëgg xamal. kan moo laabu lenset si taatam. dama ne la araam na kuy laabooy lenset ça veut dire que dof mënuma dëkk ak moom. waaw man na dafa am loo xam ne waruma dof bi gis nga. di ngeen sama yaram wi dama kaa fa bokkatal ko brosse xame ka laa kurwaa ka asib ka dong moo ma des te kee tax ma asib ka dama bëgg nga wax ak moom wala ma wax ak moom ci jamono foofu dong laa yem waaw kay sama sa tamit utal ci moom pexe man dama sonn. gannaaw tout seul. waaye la lu xew loolu la bëgg comprendre quoi man lan la lan la lu xew lan laa lan laa programme si yàlla lan la yàlla programme si man loolu laa bëgg a xam. Assane xoolal Assane Assane mesurer sa bi wax naa la we wekkaale nga masata waxuma mala dar yaa ngi commencé nag di yéeg maa ngi lay xaar ci étage bi ma lay bis boo fa yeggee. ma wan la ni la jonguwuloo xam nga da ngay wax sa bi mo jong su boba yow ci sa jëm bopp di nga jonguwaat su ma la ko wax billahi su ma si waree baat rek def ma jigen wet bu ma la weddee li ma wax boko wedde waxuma wax nga jox ma dépasse takama ma seeyal lang ma togal lambakal defal la njar gudd jote ma tàllal la cuuraay rablan bita tagul gugun tapi daba tape rebre gegel gegel gisip kind gisip kind gisip kind xolal vacances ñankula keur yoro vacances punya gula gerioro ñoom fàttali daal tàmm nañu lii yéen bu ngeen di foo xaw ma xaw ma foosante xaw ma ngàcc seen dus du ngeen du ngeen ci xool doomu yi ah aku dëkk na dafa am ah ini dañu bëgg rek ah yaro yaro ah ay yàlla man la la ji kii daal nii daal na nga dëkk ak moom kii léegi man lii may bëgg a rey laa ilaha illallah kenn solo yabaate na trop waaye ba mu ñëw fii dina ma fi fekk man du ma dëkk ak dox may wax nga romb néeg yëpp ñëw ba sama buntu néeg di fi teg sa dàll yi du ma ci boolee wax ba yore

Ça va. Padawan. ça va naka ça yam naka waal. waxal li ngay wax dama yàkkamti. Ah, waaw waaw kay sa waaw kay gisoo sama daal ma taw. xam nga da nga yabaate. xaw ma ku la ngemb. waaye maa koy lijjanti man. yabaate nga ba fa yabaate ma na yem yow sa daal yi boole nga xam ne xasaw na xeeñ na nga ne ko dëgg sama buntu nekk fii képp nekk dafa am trottoir am. sa nijaay ji la ànd ak sa yumpaañ ak sa xamul sa lu mu doon boo amee sa xet gu xis saw gooy yóbbu da nga ci buntu néegam waaye fii ça m'appartient déggoo ma de waaw kay. xam nga ñaari problème laay lijjanti. nga ni. xam nga ñaari problème laay lijjanti laa. ñaari problème ngay lijjanti. li ma waxoon waaw ma gars yi ma sa waay fi ne. sa waay fi sabe mo sabe mo mo mo kiu le mo le mo fit ben gaay mo fi ne fi waaw waaw waaw man maa fi ne ma bëgg nag nga yem nga yem fa nga war a wow yow yaa gaañ waaw waaw maay gaayin bi na dëgg nag saw lamiñ laa yor lan la woon pardon eh eh eh dama bëgg nga régler de dama bëgg nga régler dama bëgg nga régler nag wala ma koket la ba nga yàqu dëgg li ma la wax yabaate nga torop

ñëw ku la gis. Eh xam ne ñaw des naw xam ne. waaw waaw <laughs> waaw. Eh ba sàmm di ca dem ba nag. Eh. xamoo ma. ok ok ok yàlla ma la xam. da may laajte. bu jëla laajte xam naa may taaw yaayu caat doom neex ndeyam ko jàng jeeg jeeg jeeg ñaga maa jëg wuji waja ji lii dong la. allah allah. allah auzu billah mina seytaane rajiim. wuy sama ndey wàcceel ayib wala nga wàcce ay xasaay. mina seytaane rajiim. ma ne nga dem ba makkatal mu karam nodd. bu ñu leen mulu kool mi gudd na de. fii façon amu fi manière dong nga fi am. bu ñëwee day tojal yoro tingal waa kër gi yi déglu leen dama leen a bëggoon a boole ak ki nga xam ni mooy faj-fajub cosaan ci ay produits yoo xam ne lépp mi ngi bàyyeekoo ci gàncax gi maanaam lépp di ay plante ci lay jaare faj la ah mbokk yi kooku mooy cheikh borom produit yu baax yi yow mii góor wala ngay jigéen koo mënti doon nga am feebar bu la jaaxal ñëwal setti cheikh borom produits yu baax yi nga am tànk yu ruux wala tànk yu metti seet sil borom produit yu baax yi pajum cheikh soo koy jëfandikoo di gis résultat ndoxum city hémorroïde prostate naka noonu ngay am chute de cheveux maanaam sa karaw di daanu nga am leel leel bi jaaxal la lool dina la jox ay produits yoo xam ni boo ko ci defee sa karaw dina dëgër ba noppi it borom leel ba leel ba dina ñëwaat saxaat karaw nga néew kattan ñu ne góor warta néew kattan néew kattan ci moom tooñ la moo tax seex dina am loo xam ne bu la ko joxee sa kattan dina gën a bëri sa doole dina gën a bëri kon cheikh borom produit bu baax yaa ngoogu nga am biir bu rëy cheikh dina la jox produit yi nga xam ni moo koy dindi nga nekk jigéen bëgg ay forme yu baax Cheikh dina fexe ba nga jongama am na loo xam ne bu la ko joxee ku la romb xoolaat la yéen ñépp yéen a ngi xaar ma joxe numéro Cheikh jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 Serigne Cheikh borom produit yu baax yi.